seen démb nee nañ ñu tey coowal apériste authentique commencé na posé wu ana ñeen ñoo fi nekkoon démb ana ñi ñëw tey ñi mujjee ñëw peut-être gën a gis seen bopp ci yëf yi dinañu waxtaanee loolu yëpp mais surtout jafe-jafe yi APR di dund tey ndax parti boobu yëngatu na xam ngeen ko ba président Macky Sall tànnee Ba ba léegi mu nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar ci élection bi am na ñu tekki seen ndombal tànk am na ñu ñu dàq ñoo xam ne dañ leen a tekkil seen ndomba tànk ñi ngi wax ne itam ñeneen dinañu fippu fan la APR jëm lii lépp la ñuy bëgg a waxtaanee na Anne Françoise euh, Diouf Ndène ana nekk cadre ci APR nee na ñu bokk na ci ñi fi nekkoon ba dara dul dara moo jiite Mosides ana ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci démb ak tey am mbégte lool dalal la en tant que femme politique jeune cadre aussi euh, ci biir euh, parti bu mel ni APR. Euh, maa ngi lay fay Fatou maa ngi lay fay di rafetlu quand même invitation bi di la gërëm aussi. Euh, man maa ngi tudd Anna Françoise Diouf Ndène nekk cadre APR nekk tamit conseillère municipale dans la ville de de Mbour euh, nekk présidente MOCIDES muy mouvement citoyen pour le développement du Sénégal. jóge mbuur dëkk Mbour yàlla def ma def fa sama ay humanité. Euh, ba yàlla def comme li ñuy wax rek yàlla dina la woo yenn saay ci ay euh, yëngu-yëngu yoo xam ne xëy na du méngoo ak sax yow yi nga bëggoon mais ñu koy nangu rek yàlla def nag ma dugg ci politique nekk ci femme politique yàgg APR nekk ci depuis 2009. Euh, ñu ñu jànkonte ci ak lu bari yàlla def euh, ñu jàppale son excellence ba mu accéder au pouvoir en 2012 ñu continuer aussi di ko accompagner ba nii mu nekk nii euh, teg tout ce qui est plan Sénégal émergent et autres ñuy rafetlu lépp loo xam ne nii def na ko ci liggéey bi maa ngi nuyu waa Mbour di nuyu waa Sénégal di nuyu auditeur Rewmi FM. merci mm. jërëjëf Anne li tax ma tànn la bokk na ci bu ma déggee. problème mu apériste authentique ou non sama xel day dem ci yow ndax dama la mës a gis ci réseau sociale bi di Facebook benn werante amoon fa nga génnee euh, sa benn carte militante boo xam ne euh, daanaka lu bari sax ca carte ba effacé wu na tellement carte bi dafa yàgg ngay wone ne yow démb nga fi nekkoon du tey nekkuloo peut-être militante de la dernière heure comme ni ko ñenn ñi di waxee euh, donc mun naa la laaj seen ndorteel ci APR ak président Macky Sall naka lu demee woon. waaw faatu maa ngi rafetlu kàddu googu di ko rafetlu bu baax a baax a baax ndax euh, foog naa ne li andi genèse euh, problème mu carte boobu ma génne woon exhibé ko ci réseaux sociaux yi foog naa dafa am benn coow bu ko wëndu woon. ndax xam nga suñu parti bi rek ni mu demee da ngay jékki-jékki ay nit ñëw naan démb la ñëw ci parti beeg kenn xamu ko ci kenn nangamu ko ci donc yàlla def nag euh, ñu yàgg di alimenter débat boobu moo moo waraloon aussi ma génne kart boobu pour wane ne que. man xam naa ne man euh, bu dee ñi ma jiitu ci parti bi it bari wuñu parce que parti boobu man bi may dugg ci parti bi en 2009 boobu tegaguñu CCR CCR mi ngi tugg convergence des cadres républicains. bi ñu njëkkee def suñu assemblée générale Blaise Senghor après commencé jaay cart yi man ci laa jënd carte bi bi ma jëndee carte bi boobu c'était en 2010 kon mën naa wax ne man foog naa ne ci membre fondateur u euh, CCR boobu ca laa bokk ndax les première cartes de la CCR am naa ci. Euh, li andi euh, APR aussi foog naa ne jeunesse boobu ñëpp xam nañ ko c'est à l'issue euh, bi ñu dàqee président assemblée nationale ñu ne dañuy def benn mouvement temps boobu sax bi ñuy teg APR dañu doon fonctionner en comité waaw boobu président dañ doon def par cent comité par cent comité bi ñu demee bay def comité yi affaire yi bari ñëpp épouser idée bi ak vision président mu xam ne que mouvement bi rek mënu ko yóbbu élection ci lañu def coalition Macky 2012 loolu moo waral Macky 2012 ay mouvement ak ay parti politique ñoo ko porté woon ba tax président Macky Sall accéder à la magistrature suprême looloo tax mu nekk président loolu day rafet aussi ñu koy fàttali hmm. ci Macky 2012 boobu aussi muy ndaw di ay jigéen di ay nit yu dëggu yu taxaw instant boobu doon ko xeexle pour que mu jël euh, mu dem euh, élection parce que maa ngi may rappelé wu deuxième tour bi muy dem Euh, président je pense 26 pour cent la amoon ñu dem deuxième tour yàlla def ñëpp jàppal jàppale ko président Macky Sall gagné kon je pense que genèse u APR foofu la tàmbalee ci euh, constitution comité yooyu nga xam par cent lañ daan def cent personnes comité yi ba indi coalition boobu parce que xam nga ne booy dem élection du du du benn parti moo la mën a porter boo waree bëggee gañe dëgg da ngay ubbi loolu la ñuy wax il faut ouvrir il faut s'ouvrir aux comme ça yow au moins di nga maximiser sa ay chance pour gagner donc noonu la ñu demee élection en 2012 comme je l'ai dit ñu gagné pouvoir bi président Macky Sall nekk président ñu ko ñu koy accompagner boobu ba léegi aussi bàyyi wuñu waaw ñu ngi koy accompagner euh, problème bu sew boobu nag mooy li ma la wax rek à l'entame c'est que comme ni ñuy wax rek suñu parti bi lu sotti am borom parce que dañ ci yàgg mais dem nañ ba ci biir comme amoon na ouverture ñu bari ñëw dugg si maintenant le fait que yow tu n'étais pas visible à l'époque nit yi daawuñ la gis jékki-jékki gis la dañuy foog ne que yow peut-être wàllu yaan nga dangay door a ñëw alors que yëpp fi la la fekk loolu moo waraloon nag carte boobu ñu génne woon ko pour wan leen ne leen lii foog naa ne ku jënd trent e carte CCR kooku foog naa ne ci ñi ñi ñi jiitu ci CCR bi la bokk waaw waaw yaa ngi koy wax da ngeen doon def ay euh, comité mais est-ce que APR bi président Macky Sall di dem euh, ci élection 2012 bi pare woon na en tant que parti politique est-ce que pare woon ngeen est-ce que defu leen lépp rek ci gaawantu ci précipitation après Macky 2012 boot leen ngeen dem ndax problème yooyu dafa mel ni moo leen toppoo tay dinañ ci ñëw ci kanam muy jafe-jafe structuration mais est-ce que pare woon ngeen tout était ok pour que ngeen dem si élection en tant que parti. Euh, comme j'ai l'habitude de le dire je dis que je l'ai tout le temps dit ah nous amuñu woon parti politique on avait une machine politique parce que bi président génne en 2008 euh, 2012 la falu il y avait juste quatre ans on n'avait pas assez de temps pour structurer le parti première chose deuxième chose il nous fallait faire le tour du Sénégal et il fallait aussi euh, convaincre le Sénégalais le plus euh, nu mu tuddati euh, le Sénégalais bi nga xam ne moom moo gën a réticent pour ñu mën a Euh, waxtaan ak moom mu d'accord voter ñu donc on n'a pas eu le temps j'avoue que président Macky amul woon le temps pour formaliser ou pour pour structurer ce parti mm. euh, loolu bokk na aussi ci jafe-jafe yi ñuy topp ba tey te loolu il faut oser le dire parce que depuis 2012 on a vu que ce parti malgré qu'il y des des instances de décision qu'il y ait des structures de parti légalement constituées comme bu ñu jëlee la COJER pour les jeunes euh, la CCR pour les pour les euh, cadres am na mouvement des femmes mouvement national des femmes il y a mouvement des arabisans les sages et autres et autres les enseignants et autres donc loolu mën nañu ne à part structure yooyu euh, amul leneen lu ñu tegoon te structure yooyu dem nañu ba seen phase de maturité dafa mat donc ñu waroon ko renouveler te boobu ba tey renouveler wuñ ko foog naa ne loolu bokk na ci li indi léegi par rapport ak coow beeg xëccoo beek yooyu mais lépp dañ koy sante yàlla rek te xam ne euh, période boobu dañu tolloon ci ci alternance tolloon ci moo taxoon affaire bi gaawee noonu waaw et en plus euh, comme je t'ai dit amuñu woon temps pour toog di di structurer. dafa jàmpoon waaw dafa jàmpoon il nous restait juste quatre ans pour mën formaliser dem élection pour gagner ko donc loolu moo indi loolu. loolu moo andi euh, li xew tey mooy problème structuration bi ngeen di dund mais balaa ñu ciy ñëw seen ànd ak président Macky Sall noonu ko mën a euh, tënkalee seen ànd depuis 2010 2011 2012 seen compagnonnage ak moom bu ngeen toogee tey 2024 di ko natt lan nga ñu ci mën a wax. bon man à début débuts en politique comme ni ma koy waxee man j'étais pas politique du tout mais dafa am euh, fi ma doon liggéeyee j'étais dans le privé et comme j'étais dans les assurances dafa am benn euh, flotte automobile temps yooyu assurance automobile laa doon def am benn kii bu ma doon gérer yàlla def nag ma xam fa kenn koo xam ne période boobu moo doon gérer cadre yi ci biir waxtaan et tout mu ma doon convaincre est-ce que yow doo ñëw bokk ba politique doo ñëw nangam sàngam ci noonu laa ñëwee politique ak suñu dem si yàlla ABC mooy Alioune Badara Cissé nga xam ne moo ñu initié en politique. kooku aussi euh, ñu seq waxtaan mu ne ma yow da nga war a engagé wu en politique ndax bu dul dara sax di yow fi ngeen bokk yéen seen engagement politique dafa timide et ni ma la gisee nga nekk ci mouvement associatif yeeg mouvement de jeunesse yi yow soo ñëwee politique di nga ci di nga ci génn parce que. je vois damay seetlu ne que porteur de voix nga dañ lay invité de gauche à droite ngay participer ak yooyu donc man loolu moo ma andi en politique. mais début aussi comme man euh, ku ma xam-xam ne man bon dafa am nu may doxee question de principe euh, tëbuma tëb rek dugg APR bon j'ai côtoyé quelques-uns daan ut ay conseils ci ñoom di xool bi ma demee ba mu doy ma nag ci laa dem jënd sama carte daal di bokk APR commencé militer ci structure des cadres. donc man structure des cadres laa commencé militer au temps boobu Thierno Alassane moo nekkoon suñu coordonnateur. waaw Alassane Sall moo nekkoon suñu coordonnateur. donc ci lañu ñu commencé di militer mu nekk tamit loo xam ne parti bu amoon animation. à l'époque amoon na animation parce que les structures fonctionnaient normalement wax dëgg neex yàlla euh, idéologie wu libéraux yi ak idéologie ñun li ñu tegoon par rapport ak suñu ay charte yooyu ñëpp respecté woon nañu ko Euh, jàppale Macky Sall def mobilisation être ouvert aux amis et aux sympathisants même comme je le dis euh, le plus réticent quand même dañ daan dem ci moom di waxtaan parti bi am animation structurée di fonctionner normalement donc noonu la ñu def tamit def ouverture comme j'ai dit en 2012 avec des mouvements de soutien et tout mën naa jox benn exemple parce que le l'ancien directeur de Dakar Dem Dikk ci la ñëwee APR Moussa Diop ay ñoom Aji Mbergane Kanouté ci ci euh, sama grande sœur boobu ci Macky 2012 la ñu bokkoon ay ñoom Zahra Iyane Thiam et ñu porté président mu daal di gagné donc je peux dire que les débuts début bi c' était très animé le parti était dynamique c' très animé parce que période boobu dañu bëggoon alternance on voulait quelque chose de nouveau donc c' animé au fil du temps nag euh, li ci jot a am yépp gis nañu ko parce que un parti quand même au pouvoir ça grandit parce que d'habitude comme on dit donc en un moment donné le parti a été ouvert pour que ñeneen dynamique yi ñëw ci la ñu amee ñoo xam ne bokkuñu woon sax ak ñun parti mais ñu ñëw euh, ci coalition bi ñu formé Benno Bokk Yaakaar mu nekk na coalition bi gën a rëy dund ni ma koy waxee bi gën a rëy dund depuis. gën a gudd fan voilà gën a gudd fan depuis bi ñu ko tegee ba tey ñu nekk ci ak suñu ay morom alliés nekk ci ay mouvement nekk ci ay mouvement de soutien ak yépp ba gis nga 2019 ñu fal président Macky Sall ñëwaat nii ba 2024 yàlla def nag président ne du du présenté wu waat donc mën naa ne euh, président Macky Sall quand même à travers son leadership affirmé il a su quand même euh, consolider et fédérer les force ba war ba mën a am Macky 2012 jóge ci ñëw am Benno Siggil Sénégal sax la woon après ñu ñëw Benno Bokk Yaakaar mu am les plus grands partis ay PD ay kii nekk ci ay PS ak ñeneen ñi mënuma leen a lim ñëpp nekk ci ñuy liggéey di ko jàppale pour un Sénégal. léegi nag par rapport ak boobu ndax gis nañ ci suñu bopp dañuy wax xam nga loo gis rek loo gëm la la politique c'est d'abord la conviction man li may wax tout le temps mooy man j'ai épousé la vision du président. bi may bokk ci parti bi looloo tax mu bokk ci. waaw man j'ai épousé sa vision. lan la la convaincre. parce que j'ai vu en en lui que c'était quelqu'un qui prenait des initiatives def ko projet matérialiser ko loolu gis naa ko ci moom ci début bi benn initiative la doon jël dina ko def projet ba matérialiser ko te au-delà de ça. en en son parcours ak fonction yi mu jot a occupé daloon na xel pour ñu ànd ak moom période boobu noonu loolu laa gis te ma gis ne bi muy door a falu aussi ci ci ci ligne boobu la nekkoon feuille de bi loolu la woon ci ligne boobu la nekk di ci liggéey ba ñun ñépp ñu gis ne que kii liggéeykat la te amoon na vision bi mu tegee aussi le plan Sénégal émergent gis nañu que dans toutes les domaines d' secteur d' activité am na lu mu ci def boo jëlee éducation bi soo jëlee santé bi nga jël tout ce qui est construction d'infrastructure routière nga jël tout ce qui ti euh, nu mu tuddati euh, qui contribue à la souveraineté euh, alimentaire nga gis ne président def na ci ay jéego yu bari donc man mën naa ne de 2012 à maintenant le président a un bilan élogieux. il a un bilan élogieux et ce bilan je pense que pour la continuité du PSE ki mu fi nar a bàyyi Euh, am na déjà existant pour mën a continuer œuvre bi ma commencé. d'accord bi ma lay wax seen compagnonnage euh, euh, waxuma woon sax ci bilan campagne nga foofu tuuti mais dama doon wax ci seen ànd ak moom est-ce que président Macky Sall nam leen bàyyee woon xel démb bàyyee na leen ko xel tey ndax ñoo ngi dégg ñu ngi dégg ci couloir yi ñu naan ñi fi nekkoon démb dañoo mer. xëy na ñi mujjee ñëw ak euh, transhumance yi ñoo gën a gis seen bopp ci APR looloo tax manaan la nooy nattee sa ànd ak président Macky Sall 2010 ba 2023. waaw yow ak ñi mel ni yow. parce que mun nga wax si tour ñeneen ñi nga bokkaloon. a ji loolu am na man dinaa wax sax si sama tour ci sama kàddu man mi ndax euh, soo xoolee que yow yaa ngi fi nekk depuis période des vaches maigres comme ni ñu koy waxee. nga yàgg ko accompagner. nga gis des fois pro promouvoir ñoo xam ne fi lañ nga fekk wala que même bu ñu leen promouvoir da ngay gis ne que xëy na gëdd bi ñu leen jox yow mi ci yàgg joxuñ la day andi frustration boobu dafa am. dund ko yow amoon na oui dund naa ko et ça existait bel et am dund naa ko am na benn moment boo xam ne dem naa ba ni man est-ce que jaratina euh, may continuer est-ce que du ma toog xool ba xam fan la ñu jëm ndax nag li ñuy wax euh, boo defee ci parti euh, mën nañu wax huit ans wala dix ans war nga mën a toog nga évaluer compagnonnage boobu nan la lan lan la am ak lan la jur. benn moment dem naa ba ma ne ah man est-ce que du ma toog ma xool xoolaat ba xam. parce que am na yoo xam ne mais loolu aussi bi ma toogee xoolaat waxtaan ci aussi parce que kuy politique am nga ay conseillers waxtaan ci ak ñoom ne leen ah am na loo xam ne gis nañu ko parce que gis nañu ouverture boo xam ne euh, les alliés et les transhumants étaient favorisés au détriment des des des des des APR yi fi yàgg. apériste authentique apériste authentique si on peut l'appeler ainsi instant boobu bon. am na ci yenn conseil yoo xam ne gis naa ko te am na ci aussi ay ay yoo xam xam naa ko ndax président Macky Sall ku ko xam-xam ne euh, PDS la jóge te moom dafa fidèle en amitié donc dem na ba gis ne que frère ak sœur yooyu nekkoon PDS nangul nañ ko li mu doon président ak li muy liggéey ñu ñëw pour jàppale ko mu def ouverture jàppale leen mais li ci gënoon a am solo mooy ubbil na leen buntu yi jàppale leen waaye am na ci yoo xam ne ñi fi nekkoon. Euh, wax dëgg ko dàqee ña ànd ak moom. voilà ñooñu dañu leen a ci noonu laa ko mën a tuddee ñu leen budul dañ leen sacrifié dafa nekk ñoo xam ne ni euh, gëdd bi ñu waroon am ci parti bi joxuñu leen ko te loolu bu yàggee à base lay répercuté parce que yow soo nekkee à base di liggéeyal kenn. ñu gis ñoo xam ne nekkuñu woon ak moom dañ ko contrôle ñu ñëw ñu jox leen place boo xam ne yow mi doon liggéey ak moom joxuñ la ko ñoom seen bopp sax mën nañu ne ah ñun de kii ñu àndal nii nga baal ma ci kàddu gi dara foofu wala kii ñu àndal nii de joxuñ ko fa cër loolu foofu la méttee dafa métti nga boot ay nit yàgg ci parti ay nit jóge fële defuñu fa deux mois ñu cëral leen cër boo xam ne yow cëraluñ la ko. kon est-ce que mën ngaa wax ne président Macky Sall dafa fidèle en amitié parce que bu ñuy wax amitié kay yéen ñi ànd ak moom bañ ko dàqee yéen a tax ñuy wax ñee ñu di doog a ñëw loolu boo ci xoolee deux ou trois mois avant ña ngi ko doon yàq lu mel ni xeme soo déggee ma ne dafa fidèle en amitié mooy ouverture bi mu def parce que bari na ci ñoo xam ne tey bu ñu xasee joteeg nit dañuy dañuy dagg relation bi euh, amoon nooy def ba ñëwaat ak ñoom moom au moins il a eu de dépassement ouvrir bunt yi pour ses frères et sœurs yooyu nga xam ne nii au au début nanguluñ ko woon te dem ba ci digg bi nangul ko ñu ñëw ci. politique tamit addition la. waaw politique addition la waaye des fois nga dund ak nit loo xam ne nii tu veux même pas voir en photo donc côté boobu laay waxee ne il est fidèle en amitié. mais aussi ñun comme ni ma koy waxee bari na ci man ak sama ay morom ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo ci ñoom lañ ñoom ñoo ci gën a sonn ñoom lañ ci gën a sacrifié mais lépp soo gisee ndëgërlaay bi mooy c'est sa propre man dama daan toog di wax ne man APR président Macky Sall moo ma ci bàyyi te dama ko gëm waaw parce que man damay fonctionner par principe man Macky Sall ak sa vision ñoom laa gëm moo tax ma dugg biir APR. te vision boobu ma gis mu koy doxalee Sénégal su ma demoon ba gis ne gisatuma ci sama bopp damay bàyyi waaye duma ci nekk di xëpp suuf. mais nag du ma du ma weddi dem naa ba benn moment ma toog ma ne naa toog xoolaat parce que am na yoo xam ne boo ko comprendre. comme ni niñ koy waxee te foofu aussi dafa am benn côté boo xam ne ni tax mënuñu comprendre mooy les structures du parti ne marchent pas. waaw parce que sànq bi ngay wax ne dañuy fonctionner yaa ngi au passé. bàyyi naa ci xel maa ngi ci doon ñëw kon APR doxatul. non les structures du parti. ni ah, mu structure mooy parti bi. waaw waaw ah, structure neel APR parti boo déggee ñu naa structure du parti mooy ku ci nekk ci fi ngay liggéey am na foo bokk structure parti bi bu doon marché normalement. xëy na am na yoo xam ne du am te loolu yépp mooy manque de structuration bi le président Macky Sall n'a pas structuré ce parti loolu dafa am il n'a pas structuré sa parti te loolu dafa ñu porter préjudice ba nii ba ci choix wu candidat bi mm-hmm. parce que am na yoo xam ne suñu ko tegoon xëy na ku ci nekk di nga xam place bi ngay occupé ku ci nekk di nga xam li nga war a def ci parti bi ba du jar yenn yi parce que tey su ñu amoon numéro 2 par exemple bu Macky Sall du présenté wu ñépp dinañ ne kii mooy numéro 2 bi hormis ça dangay dégg ay nit yu wax engagé parti bi te xamoo sax fu ñu bokk ci ci parti bi hmm. tout le monde se di responsable ça aussi c'est c'est c'est quelque chose su ñàkk structuration bi tout le monde est chef waa kay loolooy conséquence su ñàkk parti bi chaque engage le parti te du mujj fenn loolu dañ ko gis donc loolu mooy vraiment difficulté yi ñu am ci non structuration wu parti bi et en plus même bu dul loolu euh, da ngay dem ba benn moment Euh, da ngay gis ne que am na ci benn comme ni ñu koy waxee ci olof benn pëcc xaw bu am benn pëcc xaw am euh, da ngay gis ay nit yoo xam ne ñoom la ñu gën a jël au détriment des autres te ñooñu li ñuy liggéey sax ñeneen ñi liggéey ko parce que nag base politique boo ko bëggee entretenir il faut que tu sois renforcé ay militants ak ay responsables politiques soo leen yoolee da nga leen di renforcer pour ñu mën a liggéey à la base parce que soo leen renforcer wul rek. keneen koo mun di renforcer mu bokk ak moom foofu kooku mooy ñëw liggéey à la base au détriment de ki fi nekkoon. maa looloo xew Mbour ga ngay militer. waaw am na fa nag wax dëgg neex yàlla am na fa man fa may militer Mbour am na fa parce que renforcement bi war ci yenn responsable yi amuñu ko amuñu ko. dañuy liggéey ak suñu propre moyen suñuy maigre moyen li ñu ko may nag moom xëy na am nañu fa euh, leadership boo xam ne nit yi naw nañ ñu nit ñi am na fu ñu teg te am ñu yaakaar ci ñun te ñu ngi aussi ci ci ci lépp loo xam ne préoccupation population bi la ñu ngi ci dinañu dem ci ngénte yi dinañu dem ci dëj yi ku fa am naqar dinañ ko bokk ak yow ñu ngi taxawu soxla yi ci par rapport ak li ñu li ñu cërale li nga xam ne moom la ñu am mais renforcement bu bu war bi dëgër bi waroon a am parti bi seq ko ak yenn responsable yi amu fa. ba tax na li ñuy wax dafa am ñoo xam ne fëkk da leen a gaaw a yóbbu parce tamit. am na ci ñoo xam ne nii du affaire de xaalis mais ku lay topp di militer à la base au moins am na ci yoo xam ne yow mii responsable amal ko njariñ amal ko njariñ parce que politique du dara lu dul amal njariñ ña nga ña nga dëkkal population bi il faut nga amal leen njariñ ba seen dund di changer c'est gis ne que ah, ñun de kii ñu topp changé na def na lii ci ñun changé na lii ci ñun loolu dafa am solo man mii di wax ak yow am naa ay groupement de femmes yoo xam ne maa ngi liggéey ak ñoom yàgg na mais man loolu du parti bi tax ma am ko Euh, du politique moo tax ma am ko parce que dama nekkoon dans le social di def politique de développement après au fil du temps ñu dem ba politique bi ñëw ñuy def économie sociale solidaire par rapport ak groupement yooyu di liggéey ak famille di liggéey ak jeunes yi di leen former formaliser leen en GIE ba ñu prétendre am ay ay ay ay euh, financement au niveau de la DER que je salue au passage liggéey bi Abi Sey di def foofu noonu liggéey bu rafet la te loolu yëpp xëy na am nañu boo xam ne dañu koy am ci yow bu ñu ko amul woon ci yow xëy na bu leen jaral yenn yi donc man damay wax ne que président Macky Sall par rapport ak euh, tout sa qui est euh, euh, renforcement quand même bu responsable certains responsables waroon am à la des na bu baax. kon est-ce que du président Macky day gën a lante Euh, politique am yi. bon tànn nañuy bàyyi ñee. bon du ma wax ne day gënalante parce que gënalante c'est c'est trop dire d'abord mais est-ce qu'il a accès à l'information. est-ce que information bi war am na ko ndax nag dañu nekk ci parti boo xam ne euh, am na ci ñoo xam ne duñu waxal duñu wax lépp ni mu amee waaw ndax yenn saay président Macky Sall man ak ni ma ko xamee ba ma nekkee ci parti beeg léegi nekkul kuy tànqamlu te président Macky Sall yàgg na renforcer ay nit mais dafa di yow mi ñu renforcer wul est-ce que yow jote nga pour mu xam ne renforcer wuñu la est-ce que information ba mu am par rapport ak yow boobu mooy bu baax. est que moom it accessible na. waa xam nga président nag mënta accessible fépp. mais ce qui porte sa politique à la base ñooñu ñoo war a ko au moins. ñooñu ñoo proche collaborateur proche collaborateur au moins ñooñu ñoo nekk ñi nga xam ne ñoom ñu war a yéegal information bi ba ci moom léegi nag moom pour mu apprécier. day day day day day day day jafe bu baax a baax a baax parce que li ñu koy wax en général ñun mënuñu ko xam donc loolu moo tax aussi au niveau de la base des fois dañuy wax président Macky Sall renforcé wu ñu renforcé wu ñu renforcé mais au fond de lui nous on sait pas est-ce qu'il est au courant que le renforcement nécessaire euh, pour les responsables de la base est-ce que def na ko on ne sait pas waaw. kon foofu dangeen di rafet njort ne peut-être xëy na sax am na lu mu def te yegsiwul ci yéen ndax loolu tam des fois ñu dégg ko ci wàllu politique. loolu euh, ñàkk renforcement boobu ci jigéen ñi la gën a bari walla ci ndaw ñi. wala ci ñan parce que dañuy wax itam politique yi Sénégal jigéen ñi xëy na seen njariñ bariwu ci woon léegi sax mi ngi tane mais bu njëkk tàccu lañ leen doon dooyee nuróole feesal saal yi wala feesal caravane yi est-ce que tey place su jigéen ñi jox nañ leen ko ba mu mat ak ndaw ñi ci biir APR. xam nga jigéen dafa bari ay stéréotypes yu ko tënk euh, tout le temps damay wax ne stéréotypes yooyu ñoo tax xëy na place su jigéen ci biir euh, lépp loo xam ne instance de décision la sax des fois dafay dafay minime. du bëriwu ci chance mais on a benn percée bu femmes yi def euh, depuis 2000 ak tey ci lépp loo xam ne ni euh, ci gestion des politiques publiques la ba tax na euh, man pour man APR jox na gëdd jigéen mais dafa di dañuy xeexante entre góor yi ak jigéen yi xeex boobu am na parce que tamit nañu waxante dëgg góor yi des fois duñu la xajal de trop léegi yow ce sera à toi de te frayer un chemin pour nga am sa benn positionnement loolu day am am na ci aussi ay poste yoo xam ne xëy na boo bokkul ca instance de décision ya mënoo caa jot te en plus xëy na aussi euh, ñoom critères ya ñuy jël pour jox ko góor yi xëy na critères yooyu aussi dafay dafay euh, éliminer directement la femme mais man li may wax tout temps mooy instant bii ñu toll tollootuñu foo xam ne ci politique dañuy jox góor yi jox leen li jigéen ñi ñu jox leen lu ndaw parce que ni góor yi di muyee la mayo ci politique bi noonu la góor yi jigéen ñi di muyee la mayo ci politique bi ba tax na cër bi ñu jox góor dañ ko war a jox jigéen mais gis nañu aussi comme euh, li am ci dëkk bi quand na a un pays soixante quinze pour cent de jeune quand même il faut un discours qui porte donc je peux dire que dans cette coalition jeunes yi joxo nañ leen gëdd mais renforcement bi aussi des na bu baax a baax a baax a baax des na. Hmm. jigéen ñi ak euh, ndaw ñi kon seen place euh, ci biir euh, parti bu mel ni APR des na loolu la ñu mun a jàpp parce que yàgg nañu dégg aussi jeunes yi di kaas am na ci ñoo xam ne sax ci biir parti bi la ñu bokk mais dese nañ cee gis seen bopp mais jigéen ñi itam dégg nañ ne dañuy xeexante ci seen biir bu weesoo góor ñi ngeen di xeexal ñuy am fu ñu leen di galgalee jigéen ñi ci seen bopp tam est-ce que jàppalante ngeen ci biir APR ak sax ci làngu politique bi. jàppale bi moom des na. xam nga yëfi jigéen rek jàppale bi moom des na bu baax a baax baax xam nga yëfi ñuy tegante bët waaw euh, loolu day am parce que ci ànd boo gis rek euh, comme ni ñuy wax yenn saay dina am euh, ay nit yoo xam doo leen neex dina am ay nit yoo xam ne xëy na yow sa sa approche aussi du leen neex am na nit yoo xam ne aussi peut-être sa percée da leen di déranger ou bien yow dañuy gis ne yow tu leur fais de loolu dafay am loolu ay yëfi jigéen la mais man dama naan ci foo mun di nekk rek bayal sa waar ba lépp loo xam ne bu cër jotee danañ la cëral te dinañ la ràññee ci la ngay liggéey parce que loolu mënul ñàkk on di la politique est un rapport de force mmh. maintenant force boobu nag day tax des fois am na ñoo xam ne dañuy utiliser des moyens non conventionnels pour xeex seen ay sœurs mm-hmm. mais xëy na c'est de bonne guerre pour elle parce que tamit euh, xëy na ñoom euh, ki ñuy xeex am na lu ne ci boppam wala am na loo xam ne nii mel na ko ba nga xam ne xëy na ñoom bu bu kooku percé da leen di déranger mais dama ni rek politique moom ku ci nekk war ngaa mën a bay sa waar. xeex bi moom ci jigéen ñi la ëpp ko ci góor ñi. li la góor di muñal jigéen ñi entre ñun duñu ko muñalante loolu moom dafa am. te ñoo gën a mën a defante yu sew. waaw loolu moom dëgg la moom. <laughs> alors ñu jógee démb ñëw tey seen parti bi yëngu na wax nañu sànq ne problème structuration bi bokk na ci li leen topp mais est-ce que président Macky Sall maîtriser na APR ndax ni APR yëngoo tey. Euh, wala crise d'autorité boobu ñuy wax c'est lié peut-être au fait que dootul nekk président dans cinq ou six mois noo koy jàngatee. bon li may jàngat ci euh, remous yi am biir APR euh, dafa di loo xam ne ni on avait vu venir. Hmm. waaw on avait vu venir moi j'avais vu venir. la yow. man remous yi bettu ma. parce que bu ñu nekkee ci ci ci ndaje maanaam jotaay te jotaay bi amul. li ñuy wax management. parce que management dafa di dafa am kuy nekk ci kaw am ku ca topp am keneen ak keneen ak keneen am na kilifa ndax suñu kilifa ñun ñëpp mooy son excellence le président Macky Sall. mais est-ce que yilif na dem nañu benn instant boo xam ne comme je disais rek chaque faisait ce qu'il voulait chacun fait ce qu'il parce que loolu moo am ndax man pour man discipline de parti bu xasee am yow nga génn ci discipline de parti boobu cela veut dire que am na lu xew. mais loolu yëpp dama koy tëng ci li ñu structuré wul bi parce que parti bi suñ ko structuré woon xëy na euh, remous yi ci am yi yëpp xëy na du ci amoon parce que ku ci nekk di nga xam place bi ngay occupé dinga xam responsabilité bi la incombé ba am na yoo xam ne doo ko def mais bu dee parti boo xam ne chaque fait ce qu'il veut et engage le parti nii rek la mën a demee man de en tout cas li ma mën wax mooy euh, remous bi bettu ko waaw rëmu bi bettu ma. mais yéen tam est-ce que amu leen ci responsabilité parce que bi ngeen génnee ci élection 2012 gagné ngeen wuy mais après lu woon yéen ñi fi nekkoon démb ngeen wax nañu structuré parti bi ku nekk xam fan la féetee ñu xam kii kii kii fait quoi kii représente quoi yéen tam bu bu weesoo président Macky Sall est-ce que yéen waa APR amu leen responsabilité ci loolu. xam nga responsable les responsabilités sont partagées mais euh, pour man euh, grade bi gën a ndaw mooy militant te militant nit lay topp. ka muy topp mooy kilifa man pour man kilifa war a jël décision léegi foofu mooy paradoxe bi ak ñi sa ñiy réclamer wu APR authentique parce que sooy réclamer APR authentique am na yoo xam ne gis nga ko fi ba ñu commencé ak léegi te pourtant loolu dénoncé wuñu ko bi ñu demee ba ci ndaw bi bari na parce que tey lii ngay wax nii par rapport ak structure parti bi APR authentique mu ngi fi woon man je pense que le premier combat de l'APR authentique c'était de demander à la constructeur ce parti mais ça n'a pas été fait te dégguñu leen ci combat APR authentique donc tey bu ñu ñëwee ci le choix d'un candidat quel quelqu'un qui doit Euh, succéder au président Macky Sall maanaam du succéder sax mais quelqu'un ki nga xam ne moom la président. mooy mooy gàddu drapeau bi mooy gàddu drapeau bi pour man am na revendication yoo xam ne boo koy wax dafa fekk dafa am ay préalable yoo posé woon. waaw côté boobu man côté boobu moo tax ma ne foofu yaa a un paradoxe parce que man pour man euh, am na jalon yu ñu waroon posé période bi nga xam ne parti bi kenn structuré wu ko te parti bi amoon na ci manque de discipline ñu ci gisoon. période boobu waroon nañoo jóg wax mais duñu toog ba ñu désigner ba pare ñu la et je comprends Fatou pourquoi le président doon wax nii nii oui nii noon mm. parce que depuis président waxee ne que nekkatul candidat gis nañu pëccëxoo bi am ci biir parti bi. kenn faaleetu ko gis nañu pëccëxoo bi te te foofu aussi damay saluer le leadership des partis alliés di saluer seen constance di saluer seen engagement envers le candidat Macky Sall. parce que tey li ci am lépp dégguñu ci allié dégguñu ci mouvement. problème bi li muy rëy rëy yéen neen la coow li li muy rëy yëpp ñun appel alors que allié ñoo waroon poser problème. moo tax des fois suñuy wax ne que dafa am euh, dafa am kii euh, nu mu tuddati euh, dafa tas dama naan tasu parce que dara buy tas day fekk ñi ko composé ku ne ca pàcc ba nga bokk nga dem parce que tey parti allié dégguñu benn parti allié bu ne day dem donc scission moo am. ah remous moo am et c'est au sein de l'APR te loolu yëpp problème déggoo moo ko andi parce que dëgg tamit su ñëwee dañu koy wax man principe lay demee euh, Fatou dafa am lu am muy euh, ñun ñëpp ni ñu gisee liggéeyu président Macky Sall rafet ak bilan bi président am ak li mu def ci biir Sénégal amul kenn ku bokkoon ci APR te bëggul woon mu def troisième mandat ba bari nañu ko porté woon. gis ngeen fi def nañ fi ay. massification daanaka investir ngeen ko ba pare waaw nañ fi def ko. bu ñu demee ba moom mu am lucidité parce que lucidité laa koy woowee am ay éléments d'appréciation yoo xam ne peut-être ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci à la base amuñu ko mu taxaw jàkkaarloog sénégalais yi ne man du ma nekk candidat li ñu waroon def te ñu def ko mooy jaajëfal ko waaye tamit cër biñ ko jox ba nekkoon naa ñu tànnal principe boobu la ñu war a continuer. man loolu laa gëm nit da ngay demee principe man président bi mu nee moom dematul man su ma leeree ne carte blanche du ma ko ko jox pour mu choisir ma wala ku mu choisir du ma ànd ak moom damay bàyyi damay génn ma navigué ji à contre courant mais li ñuy wax kenn du joxe bopp rocc ci làmmiñ doo ne nit ki par principe choisiral ma candidat mu choisiral la candidat nga ñëw taxaw ne ki ma choisiral ànduma ci alors que yaa ko ne war na la ko choisiral man côté boobu laa d'accord ah, kay man côté boobu laa d'accordul ak ñoom ba tax na li ci am nii yépp ñun la mais xalaat naa ne xëy na yàlla mën na def ñu gën a ñu dellusiwaat peut-être raffermir les liens. Ah. ñan ñooy dellusi. parce que. maam booy jaaw samp na ndëndam. Aly Ngouille Ndiaye démissionné na fu ñuy dellusi jëpp yaa ngi séntu ñu ñëwaat. Euh, soo déggee ma ne dellusiwaat mooy euh, suñu papa jooju di Aly Ngouille Ndiaye dafa yàgg ak ñun depuis 2012 maag Aly Ngouille yàgg na ak ñun kon kooku yàgg na accompagner son excellence le président Macky Sall. mbir bu day toll foo xam ne euh, nit ki su bëggee dem day dem ci ni mu gën a rafete te man foog naa ne Aly Ngouille li mu def c'est un gest aussi à saluer parce que ba président waxee ba choisir mu gis ne que ka mu choisir àndut ak moom dafa ne carrément démissionné te démission boobu mu def man dama jàpp ne ba tey il fait partie des nôtres parce que ci ñun la ma sa bokk te concours de circonstances day am ci politique moo tax may ñaan suñu camarades yi na rafet képp koo xam ne ci partage bi le projet de société bi nga xam ne moo ñu yëkkati woon nga demal sa bopp dañ lay ñaan nga delloo si waat sa xel delloo si waat sa xel nag cela ne veut pas dire nga ñëwaat ci ñun ndax bu ñu sañoon sax nga ñëwaat ci ñun lay doon mais delloo si waat sa xel mooy xëy na à l'avenir mun nañu tasewaat kon na rafet. en politique on dit jamais jamais. en politique jamais jamais moo tax tout le temps may ñaan que lépp luy kàddu buñ ciy génnee ci ñoo xam ne suñu frère lañu woon barke démb rek démb ci taw. na rafet ndaxte ñooñu au moins lu mu mën di nekk mës nañoo bokk ak ñoom benn gloire am na ci dem yoo xam ne aussi man euh, rafetlu wu ko. comme man euh, parce que li tax rafetlu wu ko mooy euh, dafa di affaire bi ñu koy teg bari na ci ñoo xam ne nii lu ñu doon tey Macky Sall la leen ko def ndax nag il faut il faut appeler un chat un chat bari na ci ñoo xam ne lu ñu doon Macky Sall moo leen ko def. pour man ba Macky Sall ne nekkatul candidat man ay damay xaar président choisir ma apprécier warul fa woon soit nit danga koy jox kàddu gi soit nga dem man faatu li ma gëm mooy man lu ma bokkatul dama cay bàyyi mais duma ci nekk semblant kon daa am ñuy def semblant fi mu nii parce que semblant laa ko mën a tuddee parce que soo nee damay bàyyi ba mu choisir ma apprécier parce que affaire choix bi wóolu woo ko ñun ñëpp wóolu woo affaire choix bi lépp gis nañ ko ay candidat la woon ñu dem secrétariat exécutif national président ne kan moo bëgg a nekk candidat il paraît que foofu ñaara yëkkati woon ndox au fil du temps ñu ne ñi bëgg a candidaté nañu déposer seeni i dossier au niveau du du de euh, kii nu mu tuddati suñu papa jooju Moustapha Niass au fil du temps gis nañu candidature yi ni mu baree woo nañu leen waxtaan gis nañu que am na ñoo xam ne nanguwuñu ànd ak diw nanguwuñu ànd ak diw mais ki nga ne tànnal ma man pour man ba ngeen toogee ba waxtaan ba pare rek nga xam ne que d'accord ci nga waroon a dem mais dafa am yoo xam ne nii man pour man ak cër bi ngay jox ki la jiite am na yoo xam ne rafetul. mais mais li ngay wax nii est du. ñi déposé woon seen candidature ñëpp lañ ko mën a waxal parce que ñooñu euh, balay président di wax wala président Moustapha Niass di déggoo ak président de la République ci ci lenn wala seen président Macky Sall euh, ku ci ne ci ñoom gis nañu campagne yi ñuy def. bu ñu ko deful it seeni ñoñ ñoo ngi koy def te waxuñu ci dara kii na di rien consent dégg nañ fi nee naa waaw daaw Daouda Diallo di wàcc sur le terrain di gisanteeg ay kilifa ak yi ñeneen euh, ñeneen toog ci rajo yee te yi naan man buñ ma tànneeg buñ ma tànnul yëpp damay dem euh, am ñeneen ñoo xam ne itam daas na nu fanaanal ñëpp xam fi ñu jëm est-ce que loolu du ñëpp mënoo ko tuumaal ñëpp. en fait xam nga loolu ci lan la bokk bi président ne du dem bañu ñu ne nañu choisir. candidat affirmé yooyu nga xam ne président def ci waroon jël kenn pour choisir ko ñooñu am nañu droit def seen massification am nañu droit def seen communication digitale pour que ñu porter choix si ñoom. pour def pression pour def pression. en fait du ko woowee pression sax mais pour jaay seen produit en marketing on dit jaay seen produit parce que yow mënuñu woon bàyyi kay président rek comme moom déposé nañ ay dossier te wóolu nañ mu taan day pesé xam nga ne fii euh, am na ci ay décision yoo xam ne comme ni ma la koy waxee rek amoo élément d'appréciation yi aw ma ko les renseignements généraux sont là les observateurs sont la am na ci yoo xam ne c'est palpable ci sukkandiku ci sukkandiku dangay gis ne que lii lii la waaw au niveau de la population yéen den yenn saa journaliste ngeen def sa wax sa xalaat loolu sondage bu daw la pour xool rek au moins nit ñi fan la ñu orienté wu loolu daf ci baax moo tax ku ci nekk ci candidat yooyu euh, mobiliser woon nga sa ay troupe mobiliser sa ay nit ñu génn ci réseau sociaux yi dem ci presse bi dem pour porte sa candidature loolu wàcc ci base bi loolu aussi daf ci bokk mais dès lors que le président a choisi pour man ñépp dañu waroon wax dëgg neex yàlla rafetlu ko ñu xool nu ñuy euh, waxtaanee liggéey ensemble ànd ak candidat boobu man loolu laa gëm. man fi ma d'accord rek mooy euh, joxe ni ñu koy waxee rek joxe bopp rocci làmmeñ ndax nit doo ko ne tànnal ma ba pare mu tànnal la nga ne ànduma ki la tànnal. man duma la ne tànnal ma damay dem ci leneen loolooy dëgg man loolu laa gëm. léegi tey kon fu seen parti bi jëm gannaaw nee nga am na ñuy def semblant peut-être am na ñuy waajee génn ak jamono ji sax am na ñoo xam ne buñ paree daanaka fekk génn nañ ci parti bi foo gis ëllëg APR ginnaaw Macky Sall. bon ce qui se passe dans ce parti et vraiment déplorable il faut le dire c'est vraiment déplorable. Mm. et le président Macky Sall ne ne mérite pas wax dëgg neex yàlla le président mérité wul parce que ñoom ñëpp autant lebalu leen lii. man pour man euh, scission bi warul woon jóge biir APR bi nga xam ne mooy le socle même de la coalition. parti allié yi xëy na am na nu ñu waroon taxawee. ñun sax ñuy dem di waxtaan ak ñoom pour ñu ñëw mais quand c'est l'APR c'est très grave. te il ce ne sont pas à minimiser. il faut ñu waxante dëgg dëgg su jotee nañ ko wax il faut ñu waxante dëgg le président Macky Sall a choisi le PM Amadou Ba. li tax mu choisir le PM Amadou Ba moom xam na ko te le PM Amadou Ba aussi n'est pas n'importe qui dans ce pays ndax ku jiite impôt et domaine nga nekk ministre des finances nekk ministre des affaires étrangères nga ñëw nekk premier ministre je pense que personne n'est plus habilité que moom pour ñu nekk candidat désigné de Benno Bokk Yaakaar. kon yow ànd nga ci tànn bi. man dama ànd ci tànn bi pour la bonne et simple raison que je l'avais dit à man Macky Sall la àndal épouser sa vision gis la continuité du plan Sénégal émergent à travers le candidat premier ministre Amadou Ba ma gis aussi mu liggéey ci lu am solo Amadou Ba ci plan Sénégal émergent boobu ma gis ne que xëy na continuité PSE boobu moom war na ko mën a yeggale te dañuy fàtte benn affaire aussi gis nga ñi ñu bokkal euh, coalition bi xam nañu président li tax mu choisir Amadou Ba parce que xëy na ñoom ñi d'accord gënuñu nooy wala gënuñu oyof waa parti APR pourquoi ñoom amul kenn ku taxaw ne du ànd ak président du ànd ak euh, choix wu président APR rek nga dégg ñii naan du ma ànd ak moom ñii naan du ma ànd ak moom kon cela veut dire que man pour man ñooñu ils nourrissaient déjà des ambitions yàgg na. xëy na dañ koy door a fësal man loolu laa gëm. xëy na it nourrissaient des ambitions parce que tamit affaire problème mu ay APR authentique ak nangam. APR authentique fan la ñu nekkoon bi président di dooleel transhumant yi di dooleel alliés yi te waxuñu. pourtant am na ñu doon wax de. APR authentique tey jii ñiy kaas euh, Amadou Ba mi ñu choisir comment ils ont fait que Amadou Ba mi ñëw 2016 2017 ëpp leen fi notoriété wala mu ëpp leen fi envergure nationale. loolu mooy les questions à poser. le dire loolu à poser. loolu man xam nga lu tax duma ci tontu parce que man je ne me réclame pas de APR authentique ah bien vrai que je suis authentique mais je ne me réclame pas de APR authentique parce que diw dafa ñëw 2016 ou 2017 xam nga man fan laa doon réclamer woon APR authentique te dama ko wax bind ko sama page Facebook ba ma demee ba gis ne que ouverture bi tax na. les les les ñun ñi nga xam ñoo fa nekk yàgg fa on était lésés au détriment des des des alliés et des transférés. looloog lii benn la de man wax naa ko. mais looloog lii du benn. déedéet xam nga lu tax du benn parce que foofu amul choix foofu man sama gis-gis gis-gis bu yaatu la woon. ma wax ko mais bii bokkewul ak nga jox nit kàddu ne ko choisiral ma. mais bu la boo nekk affaire authentique comme ni ñu koy waxee ay 2012 mu choisir ku nekk 2016 man a d' accord parce que yaa ko ne choisiral ma côté boobu laay waxee faut être quand même conséquent il faut de décision man foofu laay waxee. foofu laay waxee mais ce ce débat affaire le force pas amul. amul waaw man d' accord ma ci pour le choix du président d' accord ma ci. fi ñu ko waroon xeexee du fii. man loolu c'est ma conviction personnelle man pour man APR authentique fañ ko waroon xeexee du fii feneen lañ ko waroon xeexee parce que depuis 2012 ñu ngi ci ci ci ci pouvoir bi. te am na bay wéy na mbuus voilà bay man loolu laa gis bay wéy na mbuus. te wax dëgg neex yàlla man damay ñaan suñu camarades yi. ñi nga xam ne ñooy réclamé wu de APR authentique ak ñi nga xam ne dañu gis ne que président ki mu choisir neexu leen ñu delloo si seen xel man j'appelle à l'unité des j'appelle au raffermissement des liens man damay woote pour ñu fédérer les acteurs fédérer nit yi autour de la personne de Amadou Ba parce que avec cette scission là qu'on le veuille ou non si ça continue c'est la PR qui va perdre la coalition Benno Bokk Yaakaar va perdre parce que électorat bi dañ ko nar a xàcc te foog naa ne liggéeyuñu fi loo xam ne war a def conservation du pouvoir nekk fi suñu ay guerre de positionnement tax ñuy perdre moo tax j'appelle à l'unité de cœurs di woo ñëpp militant responsable ñëpp ñu ñëw autour du président euh, amadu Ba ñu liggéeyandoo ensemble pour mën a gagner élection yi man daal mooy loolu mooy li may lancé ku ci nekk nag ak fi nga nekk li tax nga demal sa bopp yaa ko xam dañu la koy concéder mais ñun li ñu mën a def man de part personnelle man mi nga xam ne militante la engagée par rapport à la vision du président man ñaan rek laa mën a dem ak woote l'unité des cœurs parce que unité des cœurs rek moo ñu ci mën a génne gis nañu syndrome local yi gis nañ sa syndrome bu législative yi. mais est-ce que le tasaaroo ne pas déjà acté à Anna est-ce que tasu leen ba noppi ñaan yi ndax mën na ci dara parce que lu président mënta régler dégg nañ dalal na fi audience ñenn mais ku ci nekk yaa ngi campé ci sa position parce que tamit tey lu ñu mën a wax amatul benn poigne bi amatul loo xam ne xëy na ñenn ñu buñ gorewul dëgg dinañ ko ko mën a xoolee mbaa ñu rusee ko ko est-ce que vraiment euh, yëf yi daal jaxasoowul ba noppi. xam nga man li ma gis mooy euh, crise d'autorité boobu ñuy wax man pour man euh, kilifa sax boo ko amee da nga koy warmaal. rus bu matul kilifa peut-être da nga koy warmaal bañ ñu gis ko ci yenn anam yi man loolu dama koo gëm. tey président mu néew mu rëy mooy suñu kilifa ñun ñëpp. te ñoom ñëpp comme ni ma koy wax rek président moo ñu bokk njaboote ku ci nekk nag am nga droit être ambitieux. parce que ambitieux on peut pas interdire à quelqu'un d'être ambitieux parce que moi qui vous parle man miy wax ak yow je suis ambitieuse voilà je suis ambitieuse parce que bëgg naa jóge point A dem point B mais man pour man ambition boobu warul nekk frein warul nekk frain ci yenn yu ñu gis parce que dafa man dama gis problème d'ego man dama gis problème d'ego ci choix bi ci yëf yi du ma ànd ak diw bi man dama ci gis problème déggo et en politique am na fu ñuy toll il faut qu'on mette les égos de côté il faut qu'on mette les égos de côté et en plus euh, processus électoral dafa yàgg te dafa tijjee ko parce que soo xoolee parenage bi bari na ci ñoo xam ne ni tey jii ñu ngi ay nekk ay candidats déclarés mais rien ne leur dit que dinañu jàll euh, stap étape bu bi. loolu lu jar a sóoraale la léegi supposon jàlluñu ñu bu parrainage bi. nu ñuy def. xanaa nag doo ma ne da bàyyi sa sa sa euh, ki nga xam ne yéen a bokkandoo ay ati at di liggéey nga dem di ànd ak keneen. moo tax xëy na su boobaa peut dinañ ñëwaat. loolu moo tax may may woote à l'unité des cœurs parce que tôt ou tard on va retrouver man loolu laa gëm te euh, dafa am lu am muy euh, dañ ñu ne woon nekk ci local yi président dafa bénir ay liste loolu dafa am ay nit yu bokk ci ñun demee yeneen liste mhm. gagné loolu dafa am. loolu tam problème bu président indi la. moo tax nañu te am na sax présidentielle bii ñoo xam ne nee nañ dañuy dem xel mi ngi teey est-ce que tam du président Macky Sall leen ngemb ci suuf mel ni yëgul lu xew. foofu sax lay attirer attention parce que dama gis depuis trois jours ay suñu ay camarades yoo xam ne ñun ñëpp bokk APR ñuy crêper les chemins di xëccoo parce que diw mooy sama candidat diw mooy sama candidat foofu lay waxee euh, kenn xamul et un jour on peut se foofu lay yem. caacax nga ñoom. waxal waxal mu de danga kenn xamul. président daa am ñu déggool ci seen i candidature ma ko wax parce que aw ma ci lu ma leer. mais jort nga ko mais. dama dañuy ramener encore comme ni nga ko waxee le syndrome des locales il y avait des listes été bénies et ça c'est après à l'issue des élections qu'on a su qu'il y avait des listes qui étaient pour maximiser les chances. l'élection présidentielle n'est pas. une élection locale moom tasaaroo baaxu ci. élection présidentielle c'est une élection une affaire de personne c'est les Sénégalais la population qui élise ñooy élire seen président paramètre élection locale ak présidentielle du benn moo tax man côté boobu duma ci xaw a sori duma sori ay liste yu ñu bénir mais daal li ma mën a wax mooy on peut se retrouver on peut se retrouver parce que élection ay paramètres la. soit tu gagnes au premier tour soit nga dem deuxième tour te boo demee deuxième tour il faut nga am ku la ku il faut nga am ay coalition yu la jàppale et ñun li ñuy ñaan mooy le PM Amadou Ba président coalition benn Bokk Yaakaar bu gagné au premier tour loolu la ñuy ñaan mais s'il s'avère que dem na deuxième tour qui nous dit que nos yi nga xam ñoo demaloon seen bopp du ñu ñëw soutenir ñi moo tax na rafet nañ ko rafetal nañ ko rafetal on est tous des camarades on est tous dans nañ ko rafetal man côté boobu laay waxee nañ ko rafetal. am na ñuy wax ne itam problème bi peut-être Amadou Ba parce que am na ñu bari ñoo xam ne ci biir APR déggoowul ak ñoom est-ce que tam jafe-jafe bi nekkul ci moom mi ñu tànn. bon man euh, débat boobu aussi duma ci mën tontu mais li ma mën a woo le PM Amadou Ba bi nga xam mooy suñu candidat mooy à plus d'ouverture loolu dama ko ciy woo parce que quand tu dois fédérer les acteurs quand tu dois porter les couleurs d'une coalition am na noo xam ne nii xëy na war nañ koo mën a xaar ci yow man nag wax dëgg neex yàlla euh, ay euh, am na ñu mu juboowul ak ñu mu juboowul duma ci sori parce que nit da ngay wax loo maîtriser je maîtrise mais li ma mën a wax mooy on l'appelle à plus d'ouverture mm-hmm. parce que ñi ànd ak moom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp xëy na ce sont des personnes ak i sa cause mm-hmm. mais là am na ñu àndul ak moom te le militant lambda bi nga xam ne c'est le militant le plus euh, réticent war nañu dem vers moom jëli ko jëli ñi frustré jëli les amis jëli les sympathisants parce que attention am na ñoo xam ne dañuy votel nit parce que vote affectif la nit la am na ñoo xam ne dañuy votel dañuy votel euh, nit parce que pap diw la te loolu dafa am am na ci ñoo xam ne duñu la votel parce que xamuñu la te dans ci élection yi c'est une masse silencieuse ñooy fal cette masse silencieuse n'est d'aucun parti politique day toog këram jour vote jot mu dem xool ki nga xam ne moom la xalaat mu voteel ko ñooñu nag dañoo war a dem ci moom dañoo war a dem ci ñoom mais li nga xam ne mooy biir APR mooy coalition bi ñu ngi koy ñaan mu gën a ubbeeku mu gën a ubbeeku waxtaan ak ñëpp te xam nañu ne sax dina ko def ndax président su demee ba porter son choix ci moom xam nañu ne xëy na matal na loolu yëpp ba mën a fédérer. mais nii vraiment je déplore et et c'est vraiment triste aussi de voir des camarades yoo xam ne dañu yàgg ak ñoom ci parti bi ñuy tekki seen doom ba tànk parce que dañu choisir kii te uñu leen. parce que tamit euh, choisir c'est éliminer. waa choisir c'est éliminer te boo jàppee ne choisir c'est éliminer tey mën na yow nekk yow suba mu nekk keneen. nga que bañ lay tànn dafa am ñu bàyyi tànn la. waaw loolu dafay am parce que ñoom ñëpp am nañu ay ndombo tànk yoo xam ne c'est pas parce que ñoom ñoo nekkoon le plus méritants mais dañ leen a jël teg leen fa te ñeneen ñi ngi toog muñ kon bu ñu demee ba jëmmi jamono ñu bàyyi leen jël ñeneen man pour man dañ koo war a nangu. ñu leen di ñaan rek encore une fois comme ni ñu ko waxee de revenir à la raison et d'essayer de revenir. parce que unité rek moo ñu ci mën a génne présentement li am nii yëpp unité rek moo ñu ci mën a génne parce que cest cassures là vraiment c'est déplorable et ça mine le parti ça min le parti et li ci gën a ñaaw encore une fois mooy on est dans une coalition et dans cette coalition les parti alliés ne sa comportent pas ainsi. loolu moo ci gën a ñaaw yéen daal yéen a seen njiit yéen waa APR. alors ñu ñu ñu dellu démb tuuti les difficultés. de l'APR jafe-jafe yoo xam ne yu tara tara tar la yu ngeen dundu ci parti bi boo ci doon limal quelque yan la. ah man de jafe-jafe yu ma dund ci parti bi moom euh, mooy euh, yàgg ci liggéey yàgg ci nekk te am na jëmmal goo xam ne waroon na am ci diggante peut-être ñun ci suñu wàllu liggéey renforcement boobu des na loolu moom wax dëgg neex yàlla difficulté la. ndax difficulté bi résidé wul sax ci yow ndax yow lu mu bon bon euh, am nga ci looy sutur la woo comme ñu koy waxee ndax man ci privé laa nekk yàgguma dugg administration j'ai fait 14 ans dans le privé te bi may def nekk ci privé yépp maa ngi politique yàlla def après ci trois ans yi laa dugg ci administration euh, liggéey nag ci politique bi loo xam ne xëy na am na renforcement boo xam ne waroon nañu ko renforcer te renforcer wuñu ko mais li ci métti yëpp mooy du nekk yow sa coobare bopp mais nit yi nekk si sa ginnaaw ndax euh, des fois xëy na yow sa ay moyen bopp du mat il faut état il faut ñun mënaan état il faut que parti bi jàppale la pour yow nga mën a jàppale ñi nekk à la base donc loolu difficulté bu metti la. Hmm. waaw loolu moom dund naa ko ci. bu weesoo yow APR. traversé wul crise bu metti boo xam ne problème la ci biir parti parce que des fois yu yéegul dina xew est-ce que am ngeen crise bu ngeen traversé en tant que parti politique muy jafe-jafe. crise bu am APR c'est un c'est une crise de positionnement. APR crise de positionnement moo am et des structures qui ne fonctionnent pas loolu moo fa am problème bi gën a metti APR c'est c'est c'est un parti qui n'est pas structuré loolu dafa am et les structures ne marchent pas trop. waaw loolu moom dafa nekk loo xam ne ce sont des faits palpables yu fi am yoo xam ne dañ ko gis loolu mooy problème bi xam naa ne moom buñ ko structuré woon xëy na am na noo xam ne euh, du ñu du ñu taxawee nii ndax bu ñu structuré woon parti bi tey dinañu éviter problème yi ñuy dund problème de ñu désigner candidat ñi génn ñi na parce que ku ci nekk rek comme ni ma ko waxee di nga xam sa place di nga xam sa responsabilité xam ne wax dëgg. après Fatou mii kat ana ci topp après ana keneen a ci topp loolu moom nekk la loo xam ne handicapé na parti bi bu baax a baax a baax a baax a baax et la manque d'ouverture bi aussi parce que nit ñi dañuy taxé dañoo siis. am na ñu ñëwoon ngeen dàq leen. waaw nit yi dañuy taxé ne ak APR dañu siis APR moom wax dëgg neex yàlla même suñu segam ñun suñu biir. yéenay siisante waxuma laa keneen ku ñëw ne dafa bëgg bokk loolu dafa am. dafa am loolu dafa am ci parti bi parti boo xam ne la. vraiment ouverture bi dafa des trop trop trop trop trop dafa des trop su fekkee yow entre camarades de parti yéen ci seen bopp yéen a xajoowul waxuma laa keneen bu mën a. ñëw lu leen dal looloo leen ko yóbbee. ah foog naa ne bari na ci de bu dul loolu lépp it te manque de structuration parti bi bokk na ci bu baax a baax a baax a baax waaw bokk na ci. jërëjëf Anna Françoise Diouf Ndène foofu la ñuy jeexalee waxtaan bi tey amoon nañu te dalal la ci démb ak tey xool démbu APR euh, ak surtout démb cadre yi nga xam ne ci nga bokk euh, nga jiite itam moo si des ñu lay gërëm ci disponibilité bi ci waxtaan wi nga sekk ak ñun gindi ñu lu bari ci APR jërëjëf Anna. waaw maa ngi lay remercier Fatou remercier la bu baax ci invitation bi remercier la aussi ci opportunité bi nga ma may pour ñu waxtaanee parti bi ndaxte dafay rafet euh, comme niñ koy waxee rek su mbir di di dox. Euh, ñu taxaw def seetlu parce que ku ne démb ne tey waaw yow démb tax ñu naan tey tey kon nag concept bi quand dama koy rafetlu bu baax ndaxte li ñu fi waxtaane yépp xam naa ne dina gind ñu bari te que dinañu xam début APR yi biñ ciy bokk naka lañ ci taxawee woon nii ñu dem ba président ne du bokk andi keneen dinañ xool nuñ ciy taxawee. Mm. di la remercier aussi yow ci sa disponibilité di la remercier ci li liggéey bu mucc ayib bi ngay def parce que dama lay seetaan dama lay suivre tout le temps gis la euh, sur question de femme questions de jeune et tout gis la aussi euh, ci euh, lépp loo xam ne nii rek day jëmal journalisme kanam nga nekk ci di ci bay sa waar kon maa ngi lay gërëm di la sant di la remercier di remercier waa Mbour fi ma jógee maa ngi remercier sama mouvement moo citoyen pour le du Sénégal di remercier département Mbour yëpp di remercier aussi euh, kenn koo xam ne ni mënuma ñàkk wax ay waxam muy sama benn yaay bu dëkk mbuur mu ngi tudd Adja Fat Fati nekk coordonnatrice des femmes de la collectivité manding moom itam nekk Mbour di liggéey liggéey bu mucc ayib maa ngi koy euh, gërëm di ko di ko euh, sargal ci ci ci fin wu émission bi Euh, di la xanaa beneen yoon rek. ñu toog waxtaanaat. Ah. <laughs> beneen yoon incha allah. <laughs> Ah, na ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi parce que jamono ji ñu bari ci APR xëy na dañuy bëgg rek toog ne tekk ba xam fan la ñu jëm euh, waaye yow euh, wax dëgg yàlla heure bu ñu la sollicité ngir waxtaan doo ci teg baat ñu ngi lay gërëm bu baax a baax gërëm ñu ñu doon déglu seen émission démb ak tay la woon ci réew mi FM Fatou Thiam nga ma ne woon ci kàddu gi feggoog jaaw jàlloo ci machine bi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen yendu leen ak jàmm